Basuma Basuma Mbare Sikomenko Abidjan Iba Famale Dia d'abord frères et sœurs en ce jour béni de l'Aïd ça fait plus de huit ans que je passe les fêtes en groupe plus de trois ans que je passe les fêtes un groupe. Mais cette année-ci, j'ai décidé de fêter seul. Il faut un peu me ressourcer. D'abord le pardon, qui est le seul problème actuellement dans notre pays, chez nous, c'est le pardon. On a un sérieux problème, notre problème c'est le pardon, mooy jéggalu gi. Pour Bachir man jiite dama gis ne temps ci live ñun ñu ngi opposé wu ba tey si ñuy live ñëpp ñun on est de s'opposer jusqu'à présent damay seetaan live gars yi di remuer góom yi di remuer play yi di remuer play yi di remuer yi même bu ñu leen tëjee kaso génnee leen même bu ñu leen rayelee ñi dagg nañ ñi patt nañ ñi làgg nañ booy gémi ñu ngi ci souffrance bu metti auxiliaires yi auxiliaire gendarme yi itam ñu ngi ci souffrance bu metti yooyu combien de blessés état ngeen foog ne dafa mun jóg tey tey tey rek régler loolu kon blessé de guerre yi ñu régler ko ana invalides yi est-ce que régler gum nañ seeni affaire déedéet le pardon newoon naa leen jikko Bassirou fay Faye bu buñ ko toppee dinañu mën a régler suñu réew lu ko moy nag xëccante bi ku nekk bëgg a dóor yaa ma defoon defoo ma daaw bi Bassirou Diomaye duggee laa na lan Ousmane Sonko kaso lan wooree palais non wooree prison korité pale sans Sonko élection du doon am loolu moom je signe je persiste Sonko moo tax élection am mais léegi on a un nouveau président foog ñu fëgg dënn yi dem ci perspective yi ngir yàlla li laay war a sóoli yéen ñëpp lay lancé appel gars yi foog ñu avancé bàyyi góom yi ñu avancé parce que premier pas yi état à travers les ministres de la République il faut qu'on avance foog ñu avancer avancer bi mooy foog ñu def audit yi audit lu mu dee dee dee mën na jël benn trente jours wala soixante jours malgré que fonction publique y a pas beaucoup de monde foog ñu def audit ba pare. bu ñu paree audit yi si la ñuy doog a def état des maanaam xam saytu lépp fu ñu jëm xam nag réew mi. boo leen gisee lay fu ma temps yëpp parce que gis nga ñit kenn du ko jiite jiital yàqamti ko bu faqasaloo bu gaañoo yow a bu faqasaloo bu gaañoo yow mii ko jiital la est-ce que xam ngeen problème statistique Sénégal fu mu toll est-ce que xam ngeen xaalisu réew mi fu mu toll xam ngeen gafaga réew mi fu mu toll est-ce que sama gars yi dinañ mën fay sareel est-ce que gars yi assuré lu bëri si ñetti weer est-ce que xam ngeen fu dépense réew mi toll yéen dépense fonction publique cent soixante onze mille fonctionnaires sur dix sept millions d'habitants cent soixante onze mille fonctionnaires yooyu li ñuy dépensé par an yéen moo ëpp yéen néew di doole gi yéen ñi amul liggéey yéen ëpp Sénégal noo mais ñooñu ñoo ëpp li ñuy lekk code Charenton maa ngi dajje après ñu xàppi yow <laughs> ñoo moom suñu ruq xam nga dëkk bi daa am foo xam ne buñ fa tolloo gars yi foog ñu waxante dëgg yee eh. <coughs> état bi trésor public bi y a de sérieux problème banque yi doon fay gars yi ngi rocc seen alal di seey banque Oris banque Alioune Sall bi bu leen sonn gars yi dañuy vidé lépp dem seen yoon pour réew mi nag ban dugg ci dèche moo tax ngeen gis ñu tegal leen gouvernement bi gouvernement avec des hommes crédibles avec un système crédible parce que moment bi ñun nekkatuñu anti système c'est impossible ñun ñooy système bi moment bi parce que ñun ñoo teg système c'est que wax ji foog ñu codé ko wax xale yi dëgg mu jeex moment yi ñun ñoo teg système pour wan leen de le mot système c'est quelque chose de péjoratif on peut l'employer dans un ou deux sens différents mooy le mot système xam nga ça fait deux jours seulement que ñoom Macky Sall ñoo nekkoon ci système tey ñoom ñooy anti système tey ñun ñooy système moo tax ñun système bii ñu teg comment faire pour le protéger man système bi ñu teg li ma leen waxoon commencement lay waxaat jeunesse la éducation la sécurité économique alimentaire point on avance rien d'autre que ça ñun suñu système bi dafa jot yéen a ngi rëbb sàcc waaye rëbb sàcc yi leen boole koog juum wala boole bu ëpp c'est très important foofu mën nga boole nit ñu yàqamti jàpp ko fekk amoo ay preuve te yaa pire que ça ñaata yoon depuis trois ans yi ñaata yoon laa leen ne bu dëkk bi tàkkee rek dem leen Sococim dem leen Sococim kër yaa ngi daanu ñu ngi koy jiiñ ku nekk bu njëkk saaku ciment dose bi cinquante cinq briques la goon def léegi saaku ciment dose bi saako bi laa la wax saaku ciment Sénégal bu sim dose bi vingt briques lay def dañoo wàññi carrément dose bi ba pare yokk prix ciment bi Sococim c'est des criminels depuis une semaine maa leen di jéem a jot mais vous êtes des criminels Sococim c'est des lâches des criminels ku dee Sénégal bâtiment bu daanu waa Sococim la barre de fer de six yi barre de fer de dix yi barre de fer de douze yi dem leen laajte yéen Sénégal jël leen barre de fer yi ngeen mesurel ko seen bopp barre de fer de six bi cinq soixante quatorze lay def cinq soixante quatorze diamètre bi barre de fer de douze yi am na yoo xam ne deful sax onze ay dix cinquante lay def dem leen eh, dem leen jël seen baar yi suba ngeen fotol ma ko ngeen xool soko ko sim c'est des criminels kër bu daanu dakaar ñu naan leen noo maçon yi rénové c'est des criminels parce que moment yi maçon yi ancien maçon yi ba tey ñu ngi jël saako ciment génne leen ci quarante briques déedéet brique bi day nekk suuf bu njëkk benn saako ciment ngay mixé ak bu bëreetu suuf non léegi c'est impossible Sénégalais yi gars yi ñu ngi leen di rey te xamu leen fi ñu leen di reyee c'est que man gis nga man di dénoncer kii moo jël milliard kii jëlul milliard man loolu munu ma ci dugg. parce que kenn si ñoom jàkkaarloo ma ñoom kenn si ñoom ku yore milliard sama kanam xam nga man tam lu may wax daf may wóor mais Sococim seen sàcc bi daf maa wóor comme sama loxo te sàcc bi ça fait quinze ans maintenant. kër dootu fi am garantie dix ans. kooku dama def ba jël ciment bi yónnee ko ba itali benn grand bu baax ndeysaan mu dem yóbbu ko gars yi analysel ma ciment bi xool barre de fer yeeg yëpp gars yi jot laa am jotu xeex laa am jot c'est que man dama am jotu combat Sococim ñoo gën a criminel dàq sàcc Sénégal mooy soko sim usine ciment yi nag damay ñaan yow président yaa ngi commencé waat tabax di ngeen bëgg a tabaxaat Sénégal yëpp mais ciment yónnee fa ay ingénieur ñu vérifier ñu dose bi quantité bi ak qualité bi xam naka lay demee léegi ngeen gis ne leneen dina xew Sococim Sococim normalement moom dafa war a fay lu bëri xaalis bu dul jeex waa bari ñi xaalis bu dul jeex waa tëngat xaalis bu dul jeex kër gu daanu ku nekk yéen assurance suivez waa Sococim yéen it assurance ay sàcc ngeen yéen gaa laay fon naa si yéen wëlbatiku ñëw ci toog muy dox toog muy dox ak lan mooy toog muy dox ak toog muy dox fan la tege Sénégal toog muy dox bi dañ koy wax mu farankulaay de eh, xam nga wax ji wax ji Touba la jëm man damay frankolaayal wax ci tey si ñun kan moo fi sañ si ñun sa baay am soixante-dix ans wala sa maam am soixante-dix ans mu toog ci kër gi nga ne ko maam dañuy xëy joo bi gars yi gis nga nag bu ñu xeexee ba fii foog ngeen xam ne nekkatuñu ci opposition mu sommes dans le pouvoir et c'est nous qui créons un nouveau système Ablaye Mbaye Pekh am na plus de soixante dix ans ma gis ngeen fiché ko fépp gis nga moom a soixante dix ans am na njaboot njaboot goo xam ne mën nañ ko garanti xool mu tëdd muy naaw loolu wër sëgëm gëm la loolu moom moo ko njabootee kooku moom xoola gain soixante dix ans Ablaye Mbaye Pekh fan lay dem liggéey il va aller travailler où Alaaji Mansour Mbaye bii ngeen di affiché fépp toog muy dox il va aller travailler où waa léegi yéen port ñan ñoo dàq liggéey port port ñan ñooy def économie Sénégal docker yi journée cinq mille cinq cent boosu douanier yi ñoom yet naa capitaine yi nekk ci kaw seen biir yi rëy ko ci wàcc boo ko yenee ñetti saaku ceeb aller retour mu puub tubayam je défie quiconque yéen kilifa douane yi nekk port yëpp ku leen wàccee ngeen décharger conteneur lu leer laa lay wax ñu faatu fa yàllaa wu boo su duwaan bu ci décharger conteneur fanaanu hôpital faatu fa yàllaa wu ñaata la ñuy fayeeku ñii di fayeeku di am trois cent cinquante mille par jour bu bokkul ak seen salaire pourtant docker yee ngi am cinq mille cinq cent docker yee def économie sénégalaise bi wala douanier yaa koy def ingénieur bi ak maçon bi kii dem jàng école ba naan ay diplôme moom pour lan muy ñëw ci terrain bi di teg ay briques kan mooy teg briques toog muy dox dafa am ñaari sens dafa am sens boo xam ne xam nga lan mooy toog muy dox dëggantaan xam nga man fan laa war a xeexee man toog muy dox pas si géwél yi parce que géwél bi sax mu ngi wax muy dox toog muy dox mooy ko amul métier toog muy dox mooy ko amul diplôme mais Sénégal ñu bëri ñu ngi ñu jiiñ tey si mbàkke mbàkke yi toog muy dox toog muy dox mais dem leen xool seeni diplôme balaa nga naan ñit ki toog muy dox ba pare ñu bëri ñu ngi muuroo benn affaire toog muy dox toog muy dox man j'ai un léger problème nii si gars yi moment bi j'ai un léger problème je vois que combat bi déroulé nañ ko Touba doxul léegi dañ koy déroulé waat dugal ko Touba ci toog muy dox ak jéem a déstabiliser maanaam gouvernement Ousmane Sonko ak la gérance de Touba eh. adduna du gudd man man man man man murit man adduna du gudd man ba Bassirou jamaay fay wala Ousmane Sonko gënal ma sëñ Mountakha sëñ Mountakha Mbacké ma leen gënal téeméeri junni yoon kooku café wu ma ko kooku bokkul sax samay kal xo voilà du sax ñëw sama xel li mu ñëw nii sama xel astafurlaa yàlla na ma ko suñu borom jéggal sëñ Moustapha saliw du ma ko jënd ay Ousmane Sonko ak ay Bassirou Diomaye Faye xalaatuma ko bokkul sama c'est que Sénégal foog ñu xam fi ñu jëm foog ñu xam fi jëm faal léegi dañu am gouvernement bu bees rek on devient des blancs mais yéen si arab yi sax dañoo reconnaître seen xalifatul ardi yi Iran dafa am la moola mais ñun lu ñu bëgg a doon ay français une république maçonnique république boo xam ne tout nit koo xam ne dañu lay rus ngir sa jëmmi maam rek léegi ñun république dañu bëgg ne non ñëpp a waa léegi ñëpp a te yàlla yemalewul suñuy baaraam yemalewul ñu ñëpp suñuy wërsëg yemalewul bàyyee kenn ak bàyyee kenn yemalewul maamay kenn ak maamay kenn yàlla suñuy borom koo koy rabbu samaawaati wa ma fil ard jal ba jalaaloo yemalew ñoo kenn point final ku fi sañoon tey sa baay wala sa maam am li waa Touba am ku fi sañoon sa baay am li waa Tiwaawan am malgré que moomuñu tarixa bi gis ñu defal ma photo Maye Baye Niass li ko topp ci doomu aadama moo ëpp population Sénégal boo demee Afrique ba le demal Nigéria ils ont deux cent millions d' habitants demal Baye Niass dafay moom quarante millions d' habitants Sénégal on a dix sept millions d' habitants gars yi foog ñu respectante tuuti xam ne nous ne sommes plus dans une opposition munu leen wax nag munu leen wax ba foog ne ñit dina sant Mbàkke am ñàkk daraja du tey na day ñëw di raam parce que lan ñii ñoo falu réew mi da jox ngor waa léegi ñii ñoo falu te dañ fiy jógee dans dix ans te dañ fiy jógee dans vingt ans bu kii dóoree dix ans keneen ki day dóoraat dix ans vingt ans non ñun suñu kër Serigne Touba bi est-ce que am na renouvellement boobu gars yi buñ jaxasee wax ji na ko nekk delluwaat si rang yi ñu jubalaat rang yi dox doxinu soldaar man sama diine ji ni nekk Sénégal nit mënu ma ko génneel man gis nga nit ku ñuul laa je ne serai jamais un arabe je ne serai jamais un français jamais de la vie jamais. li nga di bëgg nii nag di ko insigné rumanaat xalif généraux yi mais fii ban xalif moo fiy fal kenn te Bassirou Diomaye fay nekk seen kilifa ana mu tey tey mooy kilifa non imaam jiite na ko wala imaam jiitee ko kon foofu xalifatul ard tey ban sens a ñëw vue de bi kan mooy xalifatul ard si vue de fond bi vue de forme bi kan mooy xalifatul ard tey ñaari xati xalifatul ard ñoo bokkoon juma Bassirou Diomaye Faye ak imam mais tey si biir jumaa ji tey foofu yàlla imam bi la jiital bu ñu génnee Bassirou koy jiite c'est simple la vie Touba li mu am sëñ Bamba ko liggéey Fall man wax ji di ma envoyé te vidéo naan ma grand toog muy dox déedéet déedéet je regrette munoo am sanjaboot am dix doom quinze doom faal doon père de famille ne ràcc say doom di la jox vingt cinq mille par weer dix doom muy ñaata ñii andi la deux cent cinquante mille ñii cinq cent mille et eh bien ñu ne da nga bëgg lu yomb da nga toog muy dox te kat ñi koy wax kenn bëgg ci sa maam génn joo bi ku ci sa maam génnoon nga ne maam da nga yàq sama der dëgg moo ma de xam nga toog muy dox bi ñal la genre géwél yi bees yi feeñ yore réseau bi toog di saagante ba tey dama leen yërëm genre ñuy toog di def ay live ñu naan xarañ na ko loo xarañ mu bëgg a dundee ci loolu dama leen yërëm j'ai pitié j'ai pitié de wala gis koo xam ne da ngay jékki-jékki rek singale benn ñett soxore ko ndax la name nañ ko ministre j'ai pitié de vous gars yi fii ku nekk sa wërsëg ngay demee sens péjoratif ministre mooy vrai sens toog muy dox c'est le ministre il ne faut absolument rien que superviser faire des contrats qui fait le travail les techniciens ki sont sur le terrain les ouvriers moytu leen di wax si toog muy dox de barke dafa am mooy la nga jàngi woon sa diplôme ba jàngi woon nga ouvrier bi jàngi te yaa ngi fayee ko cinq cent mille ouvrier bi di fayee ko cinq mille loo ko gën loo ko ëpp da ko ëpp liggéey ndey ëppoo ko ko mais noonu la yàlla fonctionné la adduna wërsëgu borom ba mel wërsëgu borom ba mel seeni wax karab-karab munu si dara tey nag déwénu ci moo tax ma fël fii foog ñu wax waxi nit te ñu dem ci perspective yi bàyyi kii moo fi dóoroon Jérôme Bandiaka ki moodu Bandiaka ki Ibra Bandiaka ki Napal Bandiaka ki général Moussa Fall man xoola yooyu noonu xam nga léegi fan laa ko bàyyi ci loxo justice ana Ousmane Sonko tey bi daan génn du xaj fenn tey Ousmane Sonko bi won mois de janvier passé sañoon na tey ñëw julli ci biti juma amul woon fit bi mais tey ana Ousmane Sonko boobu isolé lii mooy état d'ici deux ans trois ans dootul xam yéen seen njaqare vraiment vraiment dootu ko xam parce que état déjà RTS lan la def isoler le président oui ou non RTS isolé na Ousmane Sonko comme RTS mooy machine d'isolement bu gën a garaaw ci président nag. mënu ma wax lépp lenn rek laa leen ni may yéen waa nguur gi boo ni di duggati pale coupé ngeen lépp c'est bien beau mais seen portable yi wut leen salle spéciale boo leen teg ay versaire salle boobu bu fa portable dugg boo leen ama nit amati rencontre ci biir palais ak lépp bu fa portable duggati bu fa portable duggati déwéniti sama gars basuma basuma mara suko nonko abidje iba faale iba faamaale ja ku góorgóorlu lu waaye góorgóorlu yàlla fekk si la yàlla yaafus lay bañ waaye wërsëg tam faa njaga yaaram yàllaa koy joxe <laughs> kooku moom faa njaga yaaram yàllaa koy joxe mag mu am soixante-dix ans nag bu ko neexee waxuma la pendre boppam muy dox bu ko neexee xoola day xëy toog si njawaan di farankulaay muy dox man de tey sama baay bu ma soñoon mu toog fi mu toog chaque weer ma yónnee ko cinq mille euro wala quinze mille euros su ma ko yàlla mayoon tey sama papa tey xoola bu jógee tey naan ma fis ñaata yàlla yónnee maa ngi ci tel projet mën na ko toogal. mu toog ma jox ko cinq mille wala dix mille euros doom bu baax loolu lay xalaatal waajuram mais pas a baay am soixante-dix ans nga naan ko non pas toog muy dox boo fi jeex c'est la bokk ma philosophie. qu'on se respecte un peu moo dàq loo gis jërëjëf Serigne Touba. Casamance nag dinaa ci ñëw ci dossier bu large ndax bu ñëpp di jabatu ñu xamul bu ñuy wax yow mi xam danga nga naan tekk parce que vérité et réconciliation la ñuy wax dinaa ci ñëw ci dossier bu large.